bismillahi rahmaani rahim ñi dellu ci téere bii di albazlu lfaid fi ilmi lfaraid ba al imam sëriñ daara aliyun saaxo rahimahu llahu taala muy téere boo xam ne day jàngale miras ci bind bi weesu mu ngi la waxoon ne jubluwaay bi nga xam ne moo ko gën a yitteel mooy alwaari su mooy kii doon kon liñ doon jiital yëpp loolu la ñuy tudde ab muqaddima nga xam ne indil na la asbaab yi asbaabul irsi indil la churutul irsi yi indil la arkaan yi ponk yi charte yi yi daal di indil mawaane mawaane yi en fait indil la mawaane yi mooy yi nga xam ne bu amee doonu day day tere doonu du am daal di indil nit ki bu faatoo yan la war a jiital ba pare balaa ñuy door a ci miraas bi léegi nag alwaaris googu ma la doon wax foofu lañ yegg si tey moom la ñuy jàng moom lay wax ne bi ashratin shaa xasrul waarisina wa bil ashrina qad baana fi taadaadi man nabula mu ne chaa na xasrul waarisina dafa am taqdim chaa siiw na xasrul waarisina gaw way doon yi mooy tëj leen yemale leen bi asratin ci fukk mu ne loolu moo siiw ñu ne way doon yu góor yi fukk lañ alwaarisina mu ngi ci nam way doon yu góor yi waaye mu ne waqat baana biir na mooy feeñ na leer na fii taadaadi man ci limag ka nga xam ne mooy contact ka nga xam ne waññak ka nga xam ne nabulaa xelu na mooy jëfandikoo na xelam bu baax bil ashrina ci ñaar fukk mu ne fukk de moo siiw nit ñëpp gaw ko ci fukk ne way doon nuy góor yi fukk lañ waaye mu ne ku jëfandikoo sa setantal bu baax kont wañi da gis ne dana dem ba ñaar fukk loolu lay wax ne ibnun wa axun wa ammun wa ibnuhum wa abun jaddun wa zawjun wa mawla niamatin wusila bu daal di lay limal fukk yi mu ne ibnun doom bu góor muy benn wa axun ak mbokk mu góor moo xam yaa mag moo xam moo la mag muy ñaar wa amun bàyyi tax baay tax mooy ki bokk ak sa baay ndey ak baay wala ki bokk ak sa baay baay kese muy ñett wabnuhum ak seen doom ñoom ñett ñooñu doomi mbokk doomi doom ju góor muy sët bu góor bu bayee ci doom bu góor ak doomi mbokk mu góor ak doomi baay tax kon ñoo ñett lañ ñett la lim ak seen doom muy juróom-benn wa abun ak baay muy juróom-ñaar jaddun ak maam mu góor mi jur sa baay nag lañuy wax ci wàllu baay muy juróom-ñett wa zawjun ak jëkkër muy juróom-ñeent wa mawla ni'matin ak boroomi xéewal mooy ki nga xam ne moo goreel jaam bi muy fukk mu ne wusila jokkeef na ko wa mawla niamatin ak boroomi xéewal mooy ki goreel wusila jokkeef na ko kon limal na la fukk yi nga xam ne ñooy doom yu góor yi nga xam ne moo siw muy doom bu góor mbokk mu góor bàyyi tax ak doomi doom ju góor ak doomi mbokk mu góor ak doomi bàyyi tax ak baay ak mam mu góor ak jëkkër ak ki nga xam ne moo goreeloon jaam bi ku góor fukk a ngi noonu lii mooy li siwul te ñëpp daal di koy takk waaye mu ne nag boo seetantalee moom la lay indil tàqantal googu ne la boo seetantalee dana dem ba fukk ak juróom waaye boo seetantalee sax fukk ak juróom yi dana ko dépassé dana ko weesu dem ba ñaar fukk moom lay wax ne fa fi l umumati in fassalta arbaatun wa fi l uxuwati aydan xamsatun uqila mu ne fa fi l umumati nekk na ci bàyyi taxoo in fassalta ndem tàqale nga mooy ndem def nga tafsil tasaare arbaatun ñeent Euh, mu ne nag boo boo boo boo seetantalee bu baax ci wàllu baytax doo am ñaar rek waaye boobaa ñeent ngay am ndax dafa laa waxoon baytax ak doomi baytax waaye nag baytax dafa am ñaari baytax dafa am baytax ci wàllu ndey ak baay sa baay ju ndaw nga xam ne mook sa baay ñoo bokk ndey ak baay wala sa baay ju ndaw ji nga xam ne mook sa baay baay rek lañ bokk kon ñooñu ñaari baytax moo am waaye ñoom ñaar ñëpp seeni doom dañuy doon kon bu waa da ngay gis ne ñeent la doomi baytax ci ndey ak baay bàyyi tëx ci ndey ak bàyyi ak doomam bàyyi tëx ci baay kese ak doomam muy ñeent moom lay wax ne fa fil umumati nekk na ci bàyyi tëx in fasalta boo tàqalee arbaatun ñeent wa fil uxuwati nekk na ci mbokk aydan ba tey xamsatun juróom uqilaa xameef na ko ba tey ci mbokk gi xam nga dafa laa waxoon axun wabnu axin maanaam wabnuhum googu ibnu axin ñaar nga amoon léegi nag da ciy yokkaat ñett da nga ciy yokkaat ñett xam nga moom limee fukk nga ñëw ci bàyyi tax yokkaat ci yeneen ñaar nga am fukk ak ñaar mbokk tamit boo ñëwaatee yokkaat ci yeneen ñett da ngay gis ne da ngay am fukk ak mbokk lan la waxoon mbokk mu góor ak doomam léegi nag mbokk mu góor ñett la daa mbokk mu góor mi bokk mi nga xam ne yéen a bokk ak baay mbokk mu góor mi nga xam ne nii baay kese ngeen bokk ak mbokk mu góor mi nga xam ne yaay rek ngeen bokk muy ñett ñett ñoo dañuy doon waaye ñett ñoo ñaar ñi rek la seen doom di doon mbokk mu góor mi nga xam ne ndey kese ngeen bokk moom doomam du doon léegi nag ñett ñooñu ñetti mbokk yooyu boo jëlaatee doomi mbokk mu góor mi nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay kooku day doon muy ñeent nga jëlaat doomu mbokk mu góor mi nga xam ne bàyyi rek ngeen bokk kooku day doon muy juróom kon bu baax am nga fukk ak juróom ci ñi nga xam ne dañuy doon mu ne wa minhum bokk na ci ñuy doon ba tey asibul mawla aji asabal ki goreel al mawla mooy ki goreel léegi nag dañoo waxoon ne mawla neamatin day doon mooy ki goreel jaam bi bu fekkee jaam bi da nga koo goreel mu dem ba mu faatu amul kenn ku ko war a doon léegi ndono gi cër bi day tuxu ñëw ci yow léegi nag yow mi ko waroon doon mi ko goreeloon nekkoo dégg waa dañuy dem seeti ndax am nga doom bu góor bu mën a asabal doom bu góor kon parce que doom bu góor day asabal day jeexal alal ak wala sax sa baay ndaxte day jeexal alal kon bu baax ñooñu tamit dañuy doon maanaam yow boo fa nekk ñoom ñooy doon sa jaam boobu noonu moom lay wax ne mu minum bokk na ci ñu doon asibul moo la aji asabal ki goreel muy muy muy muy muy fukk ak juróom benn wa mu abin ak baay taxi baay kooku day doon baay taxi baay day doon kooku sa maam la waam mu jëddin ak baay taxi maam kooku day doon kooku sa maam maamaat la sa maam bàyyi taxam day doon kon da ngay gis ne foofu danga am boo waxee bàyyi taxi baay muy fukk ak juróom-ñaar baay taxi maam muy sa maam maamaat muy fukk ak juróom-ñett wamaa ak la nga xam ne in fasala facc na min zeyni ka tukkee ci sa ñaar yooyu maanaam tukkee ci ñaar yooyu mooy lan bàyyi taxi day doon kon doomi bàyyi taxi bàyyi day doon bàyyi taxi maam day doon kon doomi bàyyi taxi maam day doon moom la wax ne ak la nga xam ne in fasala facc na min zeyni ka tukkee ci sa ñaar yooyu mooy do seen doom ñoom ñaar mom lay wax ci sharab mo ne adadu man limam ña nga xam ne yarisu dañuy doon min rijaale ci góor ñu mahsurun luñu gawla moy luñu takal bi lancerati ci fukk alal ijmal ci mbëmbëstal moy bo bolé takalé wo way yataraqa dana yegg nak bi tafsil ci takalé wo tanwi ak xétalé ila 15 achara jëm ba fukk ak juróom wa yablugu dana jot bi ziyarati ci dolli ila 20 jëm ba ñaar fuk mu ne bo takalé dana mat fuk ak juróom waye man nga ci dolli sax mu yegg ñaar fuk ta dolli gi moy bayit bu mujj bi wa minhum asibul mawla wa ammu abin wa ammu jaddin wa min dhalika fasala fofu juróom mo fa nek moo tax mu ne mu daal lay limal mu ne al ibnu doom bu góor wabnuhu ak doomam wa in safala donte suufe na maanaam donte sët sëtaat la sax dana doon wal abu ak baay wal jaddu ak maam dañuy doon kon foofu amagum nga ñeent muy doom bu góor ak sët bu góor bu bàyyee ci doom bu góor ak baay ak maam muy ñeent wa in ala maam moomu nag maam mu góor lañ ci na maam góor mi jur baay maanaam ci wàllu baay wa in ala donte kawe donte maam maamaat la sax dana doon kon ñeent ngi noonu wala axu ak mbokk mu góor shaqiqan ci ndey baay aw li abin wala ci baay rek aw li ummin wala ndey foofu am nga ñetti mbokk boo ñett yooyu boo ko boolee ak ñeent yi ñu waxoon da ngay gis ne da am juróom léegi nag wabnuhu ak doomi mbokk shaqiqan ci ndey baay aw li abin wala ci baay rek foofu tamit nga amaan ñaar maanaam doomi mbokk ci ndey ak baay ak doomi ci baay kese kooku tamit day doon muy ñaar ñooñu léegi nga boole ko juróom-ñaar yi gis ne am nga juróom ñeent wala am ak baay tax ci ndey baay aw abin wala ci baay rek baay tax ci ndey baay maanaam sa baay tax bi nga xam ne ni sa rakku baay la wala sa magi baay mook sa baay ñoo bokk ndey baay wala mook sa baay baay rek lañ bokk ñaari baay tax yooyu dañuy doon kon nga jël ñaar teg ko ci juróom-ñeent yi waxoon muy fukk ak benn wabnuhu ak doomi baay tax shaqiqan ci ndey baay awli abin wala ci baay rek maanaam sa baay tax bi bokk sa baay ndey baay wala sa baay tax bi bokk sa baay baay rek ñoom ñaar seeni doom dañuy doon kon ñaar ñu tam nga yokk leen ci muy fukk ci fukk ak benn nga teg ci yeneen ñaar muy fukk ak ñett وزوج اك بروم كير موي جيكر موي فوك نينت ومولا نعمتين اك برومي خيوال موي كغورال جامبي موي فوك جوروم من فاولا ني 10 فوك لاني على الاجمال كي مبستل و 15 فوك جوروم لاني على التفصيل كي تاقال ويزار ديفنا سي دولي عاصب المولى اجي عصبال با يالا موم لاني وخون سانك سي غيناو وعمل ابي اك بايت خيمام عصبال با يالا عصبال كي غورال لاني نام مان كي غورال بو فا نيكول كي عصبال موكاي دون والعمل ابي اك بايت خيمام عاصب المولى موي فوك جوروم بن وعمل ابي اك بايت خيمام موي فوك جوروم نيار وابنه اك دومي بايت خيمام موي فوك جيروم نيت وعمل جدي اك بايت خيمام موي فوك جيروم نيت وابنه اك دومي بايت خيمام موي نيار فوك فيكون دا ني نيك بهذه الزياره تي بلا دولانت عشر نيار فوك والاخو مبوكو نك مون بي تسديد الخاي تي شد خاغي لي مخني والاخو مبوكو بي تسديد الخاي تي شد خاغي لغه لغه في الاخي تي مبوكو بي تخفيفها تي ويفال كو دا وا اخون دا ني وا دا ني ان شاء الله دا وا اخون دا وا اخون waaw moo tax mu ne bi tas fil axi bi tasdidil xaay ci sadda xaay gi loxatun loxo la fil axi ci mbokk bi tax fi faa ci woyofal ko wayati dana dikk nag lanaa ñeel ñu al axwu bi isbaatil waaw ci saxal waaw gi mu ne léeg-léeg dañuy wax al dañuy wax axwun nga xam ne waaw ga daf fay nekk loolu tamit ab loxo la dañuy wax axun bi tasdidi dañuy wax axun bi taxfiifi dañuy wax axwun bi isbaatil waaw mu ne loolu yëpp ay loxo la mu ne wal abu baay bi tasdidil baay ci sadda baa gi mu ne loxatun loxo la dañuy wax abun dañuy wax abun mu ne loolu tamit ab loxo la mu ne kullu zalika yooyu yëpp nag luxaatun ay luxa la yoo xam ne xamala naa yen nañu moo yóbbee nañu alayaa ci ñoom daruratul wasni lorug peese maanaam lorug way daruratul chan moo ñu ko moo ñu ko yóbbee euh, léegi bi mu paree ci ñooñu mu ne wal waarisaatu ala al ijmaali addatuha sabun wa in fusilat fal ashru qad xasala mu ne wal waarisaatu way doon yu góor yu jigéen yi pare na ci way doon yu góor yi nee na la ñaar fukk lañ léegi nag mu ñëw way doon yu jigéen yi mu ne wal waarisaatu way doon yu jigéen yi ala al bu fekkee dañ koo dajale noonu tënk iddatuha ab limam sabun juróom-ñaar la wa in fusilat ndem tàqaleef na ko nag fal ashru fukk xat xasala am na ñaar juróom-ñaar mooy ci jigéen ñi ñuy doon waaye nag boo tàqantalee tasaare bu baax danga gis ne danañ mat fukk léegi nag fukk yooyu la limal mu ne bintun wa bintun wa ummun jaddataani wa zaw jotun wa uxtu bi taslitin wa zaatu wala mu wal waaris bintun doom ju doom ju jigéen ju bay doom ju jigéen day donn wa bintubnin sët bu jigéen day doon maanaam ci way bi dafa def bintun wa bintun ummun wa ummun jad bintun wa bintun wa ummun jaddataane wa zaw ndaxte way bi moo tax mu daal di mënta wax wa bintubnin waaye wa bintubnin kon ibnin gi foofu daf koo xasaf mudaaf ilayhi bi dañ koo xasaf dafa xasaf mudaaf bi te mooy wa bintun wa bintubnin wa ummun jaddataane wa zaw waaye way bee tax moo tax mu ne bintun doom ju góor sët may afwan maa ngi wax doom ju góor waaye bintun doom ju doom ju jigéen wa bintub nin ak doom ju jigéen ju bàyyee koo ci doom ju góor te loolu mooy set bu jigéen bu bàyyee koo ci doom ju góor muy ñaar wa ummu nday day doon na muy yaay jaddataani ñaari maam yu jigéen yi moo xam maam mu jigéen mu jur baay wala maam mu jigéen mu jur yaay ñooñu dañuy doon muy ñeent parce que jaddataani foofu baat bi rek la lim limul ñaari maam yi moo tax mu ne la boo tàqantalee dana mat fukk waaye fii jaddataani benn rek nga koy jàppee kon ñeent ngi noon bintun benn wa bintub nin muy ñaar wa ummun muy ñett yaay jaddataani ñaari maam yi muy ñeent wa zawjatun soxna muy juróom wa uxtun ak mbokk mu góor wala mbokk mu jigéen afwan wa uxtun ak mbokk mu jigéen ndaxte ci way doon jigéen lañ nekk wa uxtun ak mbokk mu jigéen léegi nag mbokk moom la wax ne bi tasli sin si ñettal ñaxte ñetti mbokk yu jigéen moo am comme ni mu amee woon ñetti mbokk yu góor mbokk mu jigéen moo bokkal ndey baay mbokk mu jigéen moo bokkal baay kese mbokk mu jigéen bokkal ndey kese ñoom ñett ñëpp dañuy doon moo tax mu ne bi tas lii sin si ñettal kon ñett ngay am foofu wazaatu wala ak borom kilifteef wazaatu wala ak boroom kilifteef mooy ki goreel jaam bi ku góor ku goreel kam goreeloon bu amul ko ko donn ndono gi day ñëw ci moom ku jigéen ki tamit bu fekkoon ne moom woon jaamam goreel ko kooku amul kenn ko ko donn ndono gi day toxu si ñëw ci moom dégg nga moom lay wax ne bintun doom ju jigéen wa bintun ak sët bu jigéen wa ummun ak yaay jaddataan ak ñaari maam wa zawjatun ak soxna wa uxtun ak mbokk bi taslisin si ñettal muy ñetti mbokk yi wa zaatu wala ak borom kilifte mu ne wa adadu man limam ña nga xam ne yarisu nañuy doon mi ne nisaay ci jigéen ñi sabon juróom-ñaar lañ wa yataraqa dana yéeg bi tafsili ci tàqale wa tanwi ak xeetale ila ashra wala ila ashrin jëm bu fukk mu ne albintu doom ju jigéen wabnatul ibni ak sët bu jigéen muy ñaar wal ummu ak yaay muy ñett wal jëddatu ak maam min jihatil abi ci wàllu baay maam mu jigéen min jihatil abi ci wàllu baay muy ñeent wa min jihatil ummi ak maam mu jigéen ci wàllu ci wàllu ndey muy juróom wal uxtu ak mbokk mu jigéen shaqiqatan ci ndey ak baay muy juróom benn awli abin wala mbokk mu jigéen ci baay rek muy juróom ñaar awli wala mbokk mu jigéen ndey rek muy juróom ñett wa zawjatu ak soxna muy juróom ñeent wa mawlaatu ni'mati ak aji méngoo xéewal mooy ki goreel euh, borom xéewal mooy ki goreel muy fukk mu ne waqalu naa suñu wax bintun wa bintun moom la ñu waxoon sànq mu ne fa fii nekk na fa xasfu mudaaf ilayhi xasaf mudaaf ilayhi ba ay li ma ci na mu ibn ibnun maanaam bintun wa bintum nin la waroon a wax léegi nag mu xasaf mudaaf ilayhi bi mu ne qad laa yaltabisu amaan na du lënt li aqil ñeel ku xelu mu ne loolu yaakaar naa ne warta lënt ki nga xam ne settantal na am na xel waaye am na ko ci saraan mu daal di continuer mu ne wal maalu in lam yakun min haula ahadun yaxtaazuhu baytu maalin amruhu tadala wa qiila in lam yakun baytun wa muctadilun fa dafcuhu li dawil arxaami qad qubila mu ne wal maalu alal ji nag léegi wax na la ñuy doon ñëpp ne la ñaar fukk yu góor la ak fukk yu jigéen léegi alal ñii ñoo war doon léegi nag ñii ñëpp buñ fi nekkul nan la ñuy def alal ji loolu lay jàngal mu ne wal maalu alal ji in lam yakun ndem amut ndem nekkul min haulaay ci fanweer yi ahadun kenn yaxtaazuhu dana làq alal ja mooy dana ko jël baytu maalin bayti mal boo xam ne amruhu mbiram i'tadala maanum mu ne bu fekkee fanweer yi kenn nekku fi alal ja dañ koy jël yóbbu ko mal dem baytimaal am na fa te mal ba ko ko yore nek ko jub nek ko maadu kon lolu sart la ca mal day am waye duur ne rek baytimaal mal amna waye ka ko yore na ko ku ko ku wa qila wa khafna in lam yakun dem amut bayti baytun mal wala sa baytimaal mal amna waye amut wa mu'tadilun ko maandu amul moom lay wax in lam yakun dem amul baytun mal wa mu'tadilun ak ko maandu fa daf'uhu jox ko li dawil arxaami ñeel borom ñeel ñeel borom mbokk yi xat xubilaa nangof na ko moo tax mu ne bu fekkee baytimaal amul wala baytimaal am na waaye ka ko yore maanduwul mu ne kon bu boobaa dañuy jël alal ja dem jox ko mbokk yi nga xamante ne ni ñooñu duñu ñooñu duñu doon boobaa ñoom lañ koy ñoom lañ koy séddale bu fekkee aji doon na amul dañ koy yóbbu baytimaal bu fekkee baytimaal am na bu fekkee baytimaal amul ñu dem seeti mbokk yi nga xam ne ni islam joxul leen cër pour ñu war a doon ñu daal di leen koy séddale ñoom tamit wala sax baytimaal am na waaye ko ko yore jubul kon boobaa ba tey dañuy jël alal jo jox ko yi nga xam ne waruñu woon a doon ñu daal leen koy séddale léegi nag boobaa nañ leen koy leen koy miraase dana ko wax moo tax ne fa dafa jox li dal arxaami ñeel boroomi boroomi roxum ya mooy mbokk ya xat xubilaa nangof na ko moom lay wax fa man maata ku dee wala yetruk te bàyyiwul ahadan kenn min haulaay thalathina ci fanweer yi جراف موي كي يوري كي يوري بيت مال جا والي موي غورنر با ولا كيكو يوري رك كليفا فين لم يوجد ندم امول ندم امول بيت مال اوي الوالي ولا جراف جا غير عدل نيكول كوماندو فيدفع ديفنا جوخ على لي اولي الارحام نيال مبوكيا موي برومي روحمي مبوكيا كما نقلوكم نكو تخل ابن عرفه ابن عرفان ابي عمر عن ابي عمر جليتي ابي عمر ابن عبد البري كيدوم عبد البري عن طرطوسي مجليكو طرطوسي وعن الباجي طرطوسي جليكو تي باجي عن ابن القاسم باجي جلبت ابن القاسم رحمه الله جميعا من كذلك كم نونو ذكروا لك تدي ابن رشد ابن رشد وابن يونس ابن يونس ونحوهم اك نيومل ني نيوم وحقي نتلفنا اتفاق شيوخ المذهب دبوك ماجي مذهبي عليه تي لولو مانام سيرني مذهبي موي مذهب مالك نيم نيب دبو نان تي لولو بعد ال 200 غناو نيات تيميري ات مانام كون لولو تي وقتو تيل غناو با يونس بن صلى الله عليه وسلم غداي بام نيات تيميري mu loolu toxal nañ ko ci magi mazhab bi mu ne wal asaxu li gën a wér bu ne al asaxu nag mooy wane ne am na wuute waaye moom daa tànn la ci gën a wér fii kayfiyati tawa tawarisihim naka lañ leen di doon loowee an tunzilahu mooy nga wàccee leen manzilata man wàcc waaye ka nga xam ne at law jaaree nañ mooy yooroo nañ bii ci moom lil mayiti ñeel ñëw bi darajatin ci daraja fa yuqdamu def na jiital ko aji jiitu ji ñu daal di koy jiital mu ne bu boobaa ñooñu nag nan lañ leen di doon loowee ñu ne boobaa dañuy seet ku nekk ci kam jaaree moom warta doon masalan mbokk mu jigéen mi bokk ak niw bi ndey ak baay kooku mën naa doon waaye doomam doomam wata doon léegi nag ñu mbokk mu jigéen nekku fa ñu war a doon kenn nekkul fa kon bu boobaa li ñuy wax jar baat jar du doon léegi nag ñu war a doon kenn fa jarbaat nekk fa ñaari jarbaat ñoo fi nekk jarbaat bi yaayam ak niw bi ñoo bokk nda ak baay jarbaat bi yaayam ak niw bi baay kese lañ bokk booba ñoom ñaar kan lañ kan la ñuy jiital jarbaat bi nga xam ne nii moom niw bi yaay seen yaay yaayam ak niw bi ñoo bokk ndey ak baay la ñuy jiital kon foofu moom leer na moom lay wax ne wal asahu li gën a wér fi kayfiyati tawarisihim ci naka lañ leen di doon loowee an tunzilahum mooy nga wàccee leen manzilata man wàcc waaye ka nga xam ne at law yooroo nañ mooy jaaree nañ bi ci moom lil mayiti ba yegg ci niw ba darajatan ci daraja maanaam daraja bi kooku amoon waaw foofu la ñuy moom lañ koy jox fa yuqdamu dañuy jiital nag asaabiqu ku jiitu comme ni ma ko waxee ci jarbaat bi nga xam ne ni yaayam ak néew bi ñu bokk ndey baay ak jarbaat bi nga xam ne yaayam ak néew bi baay kese bokk kon bu waa ka jiital mooy jarbaat bi nga xam ne yaayam ak néew bi ñoo bokk ndey ak baay fa inistawoo ndem yemoon nañ nag ñoom ñëpp ñoo bokk daraja maanaam tey kii dafa faatu ba faatoo bay na ay ay jigéenam yu bëri ñoo ñëpp am ay doom maanaam ay jarbaat yu bëri la am te bokkuñ yaay kon ñoom ñëpp ñoo yem ndaxte jarbaat yëpp seeni yaay ak néew bi ñoo bokk ndey ak baay ñeenti jigéenam la fi bàyyi ñoom ñëpp am ay doom te jigéenam yooyu mook mook ñoom ñoo bokk ndey ak baay kon jarbaat yooyu yëpp bëri nañ seen yaay yi bokkuñ waaye ñoo néew bi ñoo bokk ñoo yem ci même daraja bi mu ne bu waa fas ale defal al masala te masala ba li man ñeel ka nga xam ne nañ bihim ci ñoom li kulli kenn ku nekk nasibu man ci rek ne adlaa yooroon na ci moom mu ne waa fas al da jël def al masala te masala ba li man ñeel ka nga xam ne atlaw yooroon bihim ci ñoom atlaw yooroon nañ bihim ci ñoom li ku li ñeel képp ku nekk ñeel kenn ku nekk nasibu man cër ka nga xam ne atlaw yooroon na bii ci moom maanaam dañoo bëri kon boo dañuy xool rek ku nekk ci ka nga jaaree cër ba mu waroon am ñi daal la koy jox ñi daal la koy jox wa kadalika naka noonu maa fadala la des ala si ani siyaami euh, wala si cër ya wala asimun te déet aja asabal foofu dafa wax ne wa kadalika naka noonu maa fadala lépp loo xam ne dafa des an istihaami walis cëriya wala asibun amut aji asabal yu jaalu def na ko def fii baytil maali euh, ca baytil maal mu ne ba tey comme noonu rek bu fekkee ne tey nit ki dafa faatu ay boromi cër rek ñoo fa nekk alal ji bu boobaa boromi cër yi bu ñu jëlee ba pare mu des dañuy jël alal ji yóbbu ko baytil maal ndem am na wala baytil maal boo xam ne sax même bu mu amee tamit ka fa nekk yore ko ku jubla ku maandu bu fekkee nag baytimaal amul wala ko ko yor manduwul ba tey léegi boroomi cër yi bu ba pare alal ji des te amul kenn kuy jeexal alal kuy asabaal mooy kuy jeexal alal kon bu waa nañuy def mooy fa in lam yu jon dem amul baytimaal wala ku mandu amul rudda delloof alal ja li zawi sihaami ñeel borom cër ya dañuy jëlaat alal ja jox ko borom cër yi ñoom ñi daal di waat ko ci seen biir encore waaye duñ ko jël jox ko ñi nga xam ne ñooy zawul arham déedéet ci foofu moom dañ koy delloowaat ñi nga xam ne ñooy euh, zawu sihaami mooy borom cër yi ñi nga xam ne jëloon nañ seen i cër ba pare parce que ci miraas ñaari xaaj la am ñoo xam ne ñoom dañuy dañuy donnee ci asabal ak taasib nga xam ne ñoom bu nit ñi jëlee ba pare ñoom dañuy jeexal alal jala des am ñoo xam ne ñoom seen cër rek la ñuy jël léegi nag boroomi cër kese ñoo fi des bañ jëlee ba pare alal ji des ñu ne boobaa dañuy dem seeti bu dee baytimaal am na ñu yóbbu ko baytimaal bu fekkee ci sartab bu fekkee ka yore baytimaal ba ko jublu bu fekkee baytimaal amul wa baytimaal amul wala sax baytimaal am na waaye ko ko yore jubul ñeen alal jooja duñ ko jox mbokk yi nga xam ne waruñoo doon waaye dañuy demaat ci borom cër ya doonoon ba pare ñu daal di leen joxaat ñoom tamit ñu séddoowaat ko ci seen biir ku nekk jëlaat cëram yaakaar naa loolu leer na wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam